mbokk site internet Adouna Buzz TV li gën a fës ci bopp xawaar nag dañ koy doo rek Idrissa Seck mi nga xamante ne nag ni tey ci altine ji rek daal dinay jébbal ab lettre de démission ci post président du conseil économique social et environnemental ga mu nekkoon ñu fàttali leen kii di président Idrissa Seck nag moom moo nekk président parti bi di réew mi wante nag la mu daal di xam ne rek moo di ne dafa bëgg a nekk candidat ci élection présidentielle 2024 yi ñu dëdmal tax nag mu adressé ki nga xamante ne nag moom réew mi di Macky Sall benn lettre lettre démission waaye nag bu ñu sukkandikoo ci suñu naataango yi Seneweb moom nag Idrissa Seck la mu def ca boobu boobule bataaxal rek moo di ne mi ngi présenté wu bu baax nga xamante ne nag moom mooy président Macky Sall nag di ko jaajëfal di ko jaajëfal bu baax ci dalal bi nga xamante ne nag dalal na ko waaye tey mit ko jaajëfal ci ànd bu rafet bi nga xamante ne nag ànd na ko ak moom ngir liggéey li nga xamante ne nag moom mooy Sénégal lam daal di xam ne rek moo di ma ngay sant yàlla bu baax ci liggéey am solo bi nga xamante ne nag def na ko waaye nag ki nga xamante ne nag moom mooy Macky dalal gim ko dalal rek ak admiration ak admiration ba mu admiré ca moom rek ma ngi cay sant yàlla bu baax waaye nag ma ngay rafetlu bu baax liggéey bu am solo bi nga xamante ne nag def nañ ko ci continent wërngal këpp wante nag la mu daal di xam ne rek moo di boo moo di ne li bëri ci adversaire politique rek dañ doon cherche dañ doon xaar rek ngir mu tourner la dos ki nga xamante ne nag moom mooy Macky Sall wante nag jamono ji nag la mu daal di xam ne rek moo di rëccuwul benn yoon liggéey bu am solo bi nga xamante ne nag def na ko bi mu àndee ak Macky Sall ca wet ga nag ki nga xamante ne nag moom mooy Amadou Ba premier ministre bi nekk actuel gouvernement bu Macky Sall moom nag jamono ji nag dina boole ay fonction yu bëri bu ñu sukkandikoo ba tey ci yéenekaay bi moom nag lañ daal di xam ne rek mooy Amadou Ba dina fi nekk ki nga xamante ne nag moom mooy ministre des sports dina fi nekk ministre de l'élevage et des productions animales moom nag moom nañ ko joxaguma annonce bi nag ñu ngi ko def niki tey jii rek ci altine ji ki def boobule mbir nag di son excellence Macky Sall moo daal di xamle mbir mu nu mel ginnaaw bu ñu ñaari. ginnaaw bi ñaar ci jegeñaale Idrissa sekk rek ñoom tamit démissionné kii di ba Diatara ak Ali Sale Diop ñaari ministère ya nag bu ñu démissionné nag dañoo dem rek ànd ak seen leader bi di Idrissa Seck ci mbir moomu nag ci lañ daal di defoon nomination ki nga xamante nag moom ama du Ba jamono ji nag moom mu nekk ministre bi gën a am doole ci Sénégal ginnaaw ñett ministre nag moom la daal di rek boole du ñàkk dina ñëwaat ci yeneen jotaay xibaar ngeen indi leen ci ay leeral yu baax a baax ñu ngi leen jaajëfal bu baax ci ànd week sa foofu